Chess Habillement, couture prêt-à-porter hommes, femmes et enfants. La fierté d'une jeunesse. Chess Habillement dit grossiste ci ay tenues africaines. bepou couleur nag. Yes Habillement daf la de defal sur mesure. yi un xam ni moo xew ci jamono. yaa xam mini grand boubou. y'a xam demi saison. dañ la koy defaral ba mu nekk croc. boo amee sa boutique di jaay tissu. bu leen neexee nga ñëw indi sa marque. ñu defaral la say tenue. nga daal di dem jaayiwaat. ndax yaa moom say tissu. yéen revendeurs yi tamit seeni partenaires lañu. Chess Habillement am na ay machine ordinateur dernière génération. am machine une tête am machine deux têtes be douze têtes ci habillement grossisse le ñu en chaussures à diaspora de fin de commande ñu livrer leen ko par DHL yéen ñi jugee Mali Gambie Burkina Gabon nous l'en chez habillement nous defal l'enseigner seen i paquet ngeen j'ai jëlal numéro bi 77 774 09 71 Chez habillement amnatamit showroom pour les clients particuliers ñi ngi sur Instagram et sur Facebook chez habillement officiel Ou nga dugg sur notre site web habillement www.lesbiennesdumont.com seen jaaxle jeex na ak sëñ Fallou Kéemaan docteur l'islam bi ana ñu doon fanaanee waxtaan ak seen soxna ba fajaat jot ngir ñàkk man dara ah loolu jeex na ci réew mi yéen ñi amee hémorroïde moo xam bi feeñ moo xam bi nëbbu waaye yéen ñi amee ndoxum siti sëriñ bi fàttewu leen benn yoon ku wax say wax doom yéen ñi seelu yàgg nag am lu taxaw sëñ bi nee na danañ ci jàppale bu baax a baax a baax yéen ñi nekk Europe bëgg ñibbisi kayit jafe leen ah, a bëgg 19 yow mi bëgg xam nag sëriñ bi fan la nekk ci Dakar sëriñ bi nag mi ngi Maris ci école japonais ci résidence bu mag boobu di résidence Zeyna sëriñ bi nag bisam yëpp daf ko séddale ndax ci résidence Zeyna sëriñ bi teggal na coono yooyu nee na leen dana leen fekk aneen aneen nag buñ ko waxee mooy route bi jëm Touba ba weesoo Kër Moon Njaay Kër Madaaro aneen nga ci teg aneen nag sëriñ bi mi ngi fay nekk talaata ak àllarba yéen ñi nekk aneen nag yeen ñi nga xam tamit da ngeen nekk Touba doon ko fekk ci fi Dakar serigne bi neena seen choono jeexna na dañ leen fekk ci Touba bisu alxames ak bisu aljuma yeen ñi bëgg jokk ak serigne bi nak ci Touba nak da ngeen def 78 184 30 17 ah sëñ Fallou Keman docteur l'islam bi amul layam layam yi léppay baax waaw Mm que je lima la wax ci lolu comme man nekuma fofu ma ngi fi kër Adama suba incha buma xey dina ñu ci kër gi pour lolu waye lima la bëgg xamal engagé parce que man foog ma toog foog euh, sugu fara tok ma ak ndax fara

d'accord amul benn problème ok ñu dof dof loolu ma yàqal man sama dund man xaaral nag mu ñu ci kàttul yàlla jublu ci sama naafi léegi tey moom bañ naa ko ba sama jàllaab bi wax tat laa dóor ci kàttul yàlla war a fas yéene naafile ba fajar gi jot tey moom aw ma aw ma droit nelaw tey moom aw ma droit nelaw ndem ñu ngi ci koor gi ndem ñu ngi ci weeru promotion bi man léegi li des ci koor gi yëpp ma damaa war a tëju rek guddi gu jot ma dóor sama jàllaa bu weex taal dóor sama kaal jàkkaarloog borom Fara. Salaam. <clears throat> ana waa kër ana waa kër man maa fi ne fii kenn ñëwul maa fi ne. tey dama ñëwoon pour ñu Un dama sama waa yi finalement jàpp naa bis pour ñu ñëw si ni ko da nga da amu bis waaw après demain man ndax da nga amu bis laa bis après demain la sama tonton war a ñëw ak sama mbokk Ma fagoon na wax ak eh, eh, bela li maa fagoon bis yàlla sax yéen ko mom ba nga naan bis ba mani ni ndi ndijaay la wax ak suma papa yi dinañ fi ñëw après demain ñaan ci bela kii farata si yàlla suñu suma mel maag Bella nag waxtaan nañ conclure juboo nañu parce que comme ci koor la ñu nekk affaire yi gën a yomb man nag bugguma bruit bugguma dara bugguma dara lu xumb nañ ma ko may ci farata si yàlla suñu suma mel après surtout li ma séq ak Bella nag man la saa yu ñëwee sama kër loolu man dinaa ko mattale bu soobee yàlla loolu laa waxoon naa ñëw wax la ko après demain tonge bi dina ñëw fii quoi ak. Hmm? Ah, man kay bu ne ma xaw di ma tiital ma ji pour lan la fara dama bëgg nga xam say wax diisut ci man. Hmm. yow say wax daal diisut teguma ko fen ndax man nit nit laa ci xam ndax man nit soo xasee ba wan ma boppam ma xam yaay kan damay xam ni may doxalee samay mbir ak yow. Eh, da nga maa woon sa bopp yow wu ma maanaam dama basé wul ci say wax. say wax diisut ci man. Mm-hmm. seen famille xaw ma sa tonse ñëw xaw ma sa oncle xaaruma leen bu ñëwee baax na bu ñu fekkee si suñu fekkut baax na. waaw li ma la bëgg daal mooy nit nag benn melokaan nga mën a am waaye mënoo am ñaari melokaan mooy nga dikk présenté wu ne gor laa ñu ne voilà waa gor la wala nga ñëw présenté wu ni jaam la waaye présenté wu ni góor ba ñëpp ni àndandoo ni góor nga nga jékki-jékki wane jikkoy jaam man xaw ma lool mais jikko jaam boobu tamit yow am nga ci influence yaa ma leb xaalis ma jël cent mille jox la xaalisu jàmbur xam nga man cent mille laay bañ nga tudd ko ndax saw lammiñ daa rëy man man man ba nga taxawee fii yuuxu ba koñ bépp ñëw nga saaga ma ci kanamu nit ñi ci laa ci laa téye sama bopp ci yow waaw oh, mais lii nag yow ba adduna ba ma xamee adduna ba léegi di dox ci jamono tey laay soo gis nit ku mel ni yow ku dugg ci kër di ñaan soxna mayagul nga saaga say goro ci yow laa ko mos a gis. mais ci kër gi sama goro lepp ma. yow sugu yaa ko njëkk a def man neewuma salaamaaleykum sama goro lepp ma cent mille jàmbur. saaga say goro te mayagul la jabar yaa ko njëkk a def ci ah, àdduna. waaw waaw mais loolu weesu na sax quoi man loolu indil wu ma. man dama ne woon boo yónnee ma may la dugguma ci loolu ca loola laa nekk bu say mbokk ñi ma may leen soxna waaye nag am benn point boo xam dinañ ko leeral war nañ ko waxtaanee. ndax da ngaa waxtaan ak Bella te loolu erreur la da ngaa waroon wax ak man ba pare man ma wax ak belaa mais da ngaa jiitu ci belaa nga wax ak moom man nga war a waxal waaye da nga wax ak Bella Bella xale la man ngaa use maa nu Bella nax ko waaye man mënoo use sama maay man boo ma bëggee use day métti wala da nga ma use ma use la noonu lay demee alors li fa nekk ma lu simple la Bella la nga ko proposé arrangé wuñu arrangé wu ma man famille bi waxtaan nañ la nga wax Bella arrangé wuñu ndax ku tolni bela mi kenn du ko maye 2 millions waaye xanaa ñun dañoo dof wala xamu wala wala ñu dara xale bu tuti bu tum bu melni bela Bella bu ndaw farantu wo doxi wo sa tank musta ta buntu kër gi kenn mosu gis ci lo ñàkk fayda xale bu ndaw xale bu tuti bu ñuy dajje ci paquet amoo looy xor looy looy xalaat ci mom lu dul 2 millions euh sugu tuti nga xol te am na loo xam ne mënu la ko wax nak ko propose ndax xale la daa xamul dara nga nag ko proposé ko deux millions mu nangu waaye bi ma waxee moom nee na ma carrément de la rusa wax nag yow yaay xool nooy def ba 2 millions yooyu nga yokkat ci benn 1 million muy 3 millions waaw pour affaire yi mën a jàppandi donc nga yokk li mën a nekk daal maa ko wax nga jéem a toppatoo un tekku ci deux muy trois ñu may la jabar. deux daa baax mën naa la laaj dara deux man ci ban genre famille laa dugg nii la. yow da may jaay. man maa la war a laaj wala da may may. ñun jaay ñu la <laughs> buñ doon jaay doo jënd ñun ñun la suñu marchandise ñun suñu la doon jaay doo jënd mais lu ñu yor daa am valeur te kenn du yor lu am lu am valeur di ko fooye waaw yow nag question bi ma laaj man maa la ko doon laaj man maa la waroon laaj ci ban famille nga bokk man ba nga présenté woon ni ma ay faraja faraj ngeen sant xaw ma lan faraj man maa waroon laaj. Faraja. man Fara laa sant. encore une fois Faraja Fara benn la rek. mais li ma la bëgg a xam. Faraja mooy Bella mi ma ko séqal. ak Mburoja sax mën na caa dugg Mburoja. kooku jubóo nañu waxtaan nañu ba teg 2 millions yooyu yéene naa ko lu ko ëpp mais maa teg loolu ci loxoom. boo ko yéene lu ko da nga koy def. mais dañuy dund maag Bella après pour l'éternité da nga ma fay fekk ak bekk suukar da nga ma fay fekk ak ceeb wala dëwlin man soxlawu ma ko. bu febaré dama koy fajj dina ko deugal yalla na yàlla musal ci febar ñu wa, non déglu xam lu ma bëgg man yoy duma ci tontu ak yow bo gennon ci mbeddi mi am nu muy nga yor 4500 ñu may la jabar lu kenta jeegul d'accord lu ni dung ah mo je vais en parler ak bel Amane xamna ni may def ok ñu yak ndok jàmm ah fa Fara dimbali nit ñi tamit Fara mi mi bu dul ab sat dina ma jaxal de ay waxam waxam bari na mu dia di joxub xaalis da nga apa topp di ngal ngale di ngal ngale di ngal ngale bay bëgg a dee bela balaa lu mu am na ci daal na dem rek mi ne ci Adam kii xale bu yaru la nekk sama xarit ma doomoo ko mu nekk xale bu ñàkk problème jikkoom moo ma doy ak comportement ci koñ bu sax la dëkk xaw ma ko woon waaye mu nekk xale bu yaru ma invité woon ko ndogu moom sax daa yaakaar ne feul li ñuy ndogoo mais bañ ma woyé téléphone foofu la ne nañ ko indi fi ma orienté ko fi mu ñew ndax xam nga fee ndog yi demul non te nit boo ko invité woon ndogu nga taajal ko lu baax te <laughs> ndogu yu baax yi la nekk motax mané gaay ñu indi ma ko fii moom nag mi ngi tudd Ekeke kii moom kii mooy Adama mooy sama goro ekeke aadama Adama ekeke ekeke Adama. ekeke <laughs> naka mu. yaa si jàmm. moom bëriwul ay wax na ko. waaw naka liggéey bi. ñu si gaaw. Ah, fii de këru taalibe la moom. wallaay ndeysaan ku nekk xañ nga fi. dalal jàmm. ñoom nag xam naa ne ay kii lañ ay ay d'origine Cameroun lañ daal. ah d'accord waaw ah, lañ fee yàgg. te yàgg ah, ah, eh, gi nag sa kër la maa lay invité ndogu ndogu yàlla waxtu bi na dafa lu la sa pàcc léegi nag xale yi li ñu bëgg a temps yi baaxul de ndax boo ah waaw boo waree ba ngoon tàndarama nga war a démarré ah, ah waaw comme waxtu bi lii kenn su gis ah eh, jox ko mun kii bismillah jox ko mun bismillah adama defaral ku ce que du ma démarrer ci banaana bi sax comme kii comme tàndarma ji ñëw mën naa démarrer ci banaana bi te ma maq meew kon jàpp ci yàlla maq ci meew mi xam naa ne lu jug ah, ah, ci pom dangay lekk pom mu ñëw non ma jël mburu simple waaw waaw non baal ma jël mburu simple non na xëy na su ma jëlee pain simple kii simple la Il mooy mburu yu ñuy jaay Il ci kees gi fii da Il koy lekk moo ñuy jaay fii de. jox ma adam bismillah dem len man man ma barkel ci meum na dok sama kor. rek ah jëlal fruit bi jëlal fruit ma ñëw ma ñëw ñu ah loolu moom moom yàlla baax na yàlla moom. mën naa am koy buñ koy volontaire. yàlla baax na. am bii kon. da gis. ay waay ci jël. ay keke tamit lu yëngu doon na. bee mu mu ngi nii ay yaa ngi. yow daal ku ñu invité ndogu daal ne yow la war mm, a mi ngi nii mi ngi nii. a mi ngi nii boo gën ma la ko mi ngi nii. li ma ci jaaxal man damaa yor lu ma ko accompagner. gën a mëq rek laa man mais bon la bonne bene la connaît elle le connaît tout donc pour moi bon la comme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 exposition Kay yokk say hanche say sein ak say feste dosi gis ben effet secondaire Manila, un produit en base de karité karité quoi ko faire. 20 jours Nyal Fuki fan Tongo la may bu la neexee génn nyab njaab fini les lèvres noires le secret est avec Zo Beauty Cosmétique ku fi désormais yaa ko tek sa bop. VIP lèvres rose, mu sa aajo yow ñu ci Ndakaaru livrer partout au Sénégal Wonu 77 127 68 86 ou le 77 067 96 03 Zo Beauty Cosmétique mooy sunu choice Yeah. Yes Habillement, couture prêt-à-porter hommes, femmes et enfants. La fierté d'une jeunesse. Yes Habillement dit grossiste ci ay tenues africaines. bépp couleur nak. Yes Habillement de la koy defal sur mesure. yi nga ni moi xew ci jamono. Y'a xam mini grand boubou. Y'a xam demi saison D'un la koy defaral ba mu nek croc. boo amee sa boutique de jaay tissu. bu ne neexee nga ñëw indi sa marque. ñu defaral le say tenue nga daal di dem jaayiwaat ndax yaa mom say tissu. yéen revendeurs yi tamit seeni partenaires lañu. Habillement amna na machine ordinateur dernière génération Amna machine une tête am machine deux têtes be douze têtes ci habillement grossisse le ñu en chaussures Wa diaspora de 25 commandes commande ñu livrer leen ko par DHL yéen ñi Mali Gambie Burkina Gabon ñëw l'en chez habillement ñu defal leen seen i paquet ngeen j'ai jëlal numéro bi 77 774 09 71 Chez habillement am showroom pour ay clients particuliers ñi sur Instagram ak sur Facebook chez habillement officiel Ou nga dugg ci suñu site web www.thieshabillement com. seen jaaxle jeex na ak sëñ Fallou Kéemaan docteur l'islam bi ana ñu doon fanaanee waxtaan ak seen soxna ba fajaat jot ngir ñàkk man dara ah loolu jeex na ci réew mi yéen ñi amee émorite moo xam bi feeñ moo xam bi nëbbu waaye yéen ñi amee ndoxum cité sëriñ bi fàttewu leen benn yoon ku wax say wax doom yéen ñi seelu yàgg nag am lu taxaw sëñ bi na danañ ci jàppale bu baax a baax a baax yéen ñi nekk Europe bëgg ñibbisi kayit jafe leen ah, da a sëriñ bi ci 19 yow mi bëgg xam nag sëriñ bi fan la nekk ci dakaar sëriñ bi nag mi ngi Maris ci école japonais ci résidence bu mag boobu di résidence Zeyna sëriñ bi nag bisam yëpp daf ko séddale ndax résidence Zeyna mi ngi fay nekk samedi dimanche ak altine yéen ñi nekkoon Thiès doon ko fekk ci résidence Zeyna sëriñ bi teggal seen coono jeex na dana leen fekk si Touba bisu alxames ak bisu aljuma yéen bëgg a jokkoo ak sëriñ bi bi nekk ci Touba nag da ngeen def 78 184 30 17 ah sëñ Fallou Kéemaan docteur l'islam bi amul layam layam yi léppay baax.